allo salaamaaleykum maa ngi tudd Abdoulaye Diouk dëkk fii ci Diourbel quartier Cheikh Anta Mbacké ñu naan ko route de Bambey alors que ñu am nag problème bu mag a mag a mag ça fait trois ans de cela ñu di ko dund ba tax na tey nag ñu woo média bi pour mën koo médiatiser nit ñëpp dégg ko àdduna bi yëpp dégg ko kilifa yëpp dégg ko ngir mën nu cee wàllu mën nu cee dimbale muy lan muy inondation mbënn moo xamante ne ni sonal nanu dañuy dem ba dañuy poser question sax ndax autorité am na fii ci dëkk bii ñu naan njaarim parce que impact bi muy impact nit ñi selon danger bi ci nekk sunu doom yi sunu njaboot gi sunu dëkkandoo yi da dem ba kër yi boo ko doon ñooñ donc boo ko doon wàññi dina mat cinquante wala lu teg ci génn la ñuy def dem ci yeneen i dëkk ngir ndëkkaani fa à travers ndox mi nangu gu muy nangu seeni kër du ca yem mais day rey ginaar yi rey xar yi ainsi de suite ba pare nag impacté leen solo ci ay feebar yoo xam ne mënoo sax comprendre parce que ndox ku ne xam na ne fu mu taaju 24 heures créer fa ay feebar yoo xamante ne nii kenn du ko mën a faj hôpital bu Diourbel gis ngeen li muy dund gis ngeen leneen ak leneen ak leneen maintenant état bi bu fekkente ne dafa yónnee fii ñu naan non dañuy recenser nit ñi selon ñi nga xam ne impacté wu nañ ci inondation bi di leen jox kenn ku nekk benn deux cent mille wala cinquante mille amul sens soxlawuñ loolu liñ soxla mooy ñu ñëw defal nu fi ay assainissement yoo xamante ne nii ndox mi dina fi jóge ay caniveau wa ilaa ñu defaral nu fi ay réserve d'eau wala ainsi suite parce que am nañ espace bi moyen yaa ngi fi pourquoi pas utiliser wuñ ko léegi nag ci tënk dañ koy jox dañ koy wax ci sunu site bii nga xamante ne nii moo nekk Diourbel di Bawol di Bawol Time nekk sud bu am solo boo xamante ne nii euh, vraiment ñoo ngi koy sant bu baax ci déplacé wu bi mu def euh, ci vraiment volonté wu euh, mbay Sarr di sama cousin di ko baax di koo xamante ni toujours ci lii lay dox ci koñ bi à travers développement loo xamante ne dana dimbale nit ñi ainsi de suite kii taxaw ci sama wet ci sama loxo càmmoñ tudd mbay Diallo dina présenté boppam dina ci wax moom it chaque jour que jëfee jóg na. di saytu di góor góorgóorlu di uti ay pomp lu ne mu di ko def à travers ndox mi abal nu parce que télé bii bu ñu xoolee depuis daaw bi ñuy defar nationale bii nii si leen ko fi oto yi gros porteur doon jaar si la yàqu kër yi yëpp bu ñu duggoon filmer ko dafay xonq en permanence possible bi dugg si biir kër yi nit ñi amee si ay feebaru sëqat ak feebar bu nekk nit ci jëlee ne ko fii nii diggante si télé bu xonq bi autorité yi nag wax nañ leen ko ba sonn pour ñu mun a ñëw réfectionné waat télé bi parce que télé bi nu mu mel baaxul. Mhm. yàqu na ndox mi da si taaje. ndox mi traversé fii mu ngi si biir kër yi présentement nii ñetti taw la tawagum Diourbel mais kër yi ñu wër yëpp mu ngi fees dell ak ndox. bu ñu demee jour national bi tamit ah, télé bi mu ngi foofu mu ngi mu ngi fees ndox depuis mu taw te baare woon ne ko fii defar ko fi si màggalu daaw bi ba ren ñu defar moitié bi bàyyi moitié bi. moitié bi ñu defar teewul amul benn résultat parce que ndox mi mu ngi foofu noonu si kaw tëli yi ba oto yëpp dañuy teggi di jaar ci dingiri bi yenn oto yi ñu ngi ngiroo foofu noonu di am ay problème vraiment ñun Diourbel sonn nay parce que mënuñu chaque nawet bu commencé début juillet ba fin octobre novembre nit yi dañuy génn seen kër yi ndax ndox mi da koy nangu te duñ gis benn autorité boo xamante ne bi dana taxaw pour jéem dara si ndox mi ngir dimbali askan wi mais askan wi fii si Thierno Kandji sonn na root na waaru de Bambey ñu ngi woo nag interpeller autorités yi yëpp autorité politique yi autorité administrative yi luñ si mun ñu def ko te xam nante ne bii nii ku lu ku fu ñu koy def fu ne waa Jurbel lañ ko defal wante tamit seeni askan lañ koy defal ndax askan wi soxla nay seen i ndimbal sonn nay trop trop trop trop foo na seen seen coono weesu na juróom benn weer la ñuy dëkk seen kër yi yeneen juróom benn weer dañ koy génn ñun euh, Cheikh Anta ñun waa route de Bambey du nu baare tali bi du ñu fi nekk naan dañuy manifester woo di grève ak di yàq parce que yaruñu ñu ci loolu xamuñu loolu mais dañ leen di bàyyi ak danger bi nga xamante ne ni ndox mi am na ko selon dëkkandoo yi selon région de Diourbel li may wax nii nag c'est un langage codé donc ñi koy déglu dinañ comprendre bu baax li may expliquer ndox fu mu taaju 24 heures li ci war a nekk ak li ciy jógee ak li muy def lépp. xam ngeen ko borom xam-xam yi xam nañ ko donc jarul sori loolu jarul xeex jarul yàq jarul def leneen vous avez vu maa ngi def maa ngi maa ngi def sama discours oto bi dafee romb rek mais ñun ñëpp fi ne ñoo ci biir ndox mi fi caméraman bi bu ko filmé woon gis nga est-ce que lii c'est ci région bu mel ni Diourbel en ah, maintenant ñu dellusiwaat nag ci loolu ma expliqué que ne du nu taal tëli du nu baare du nu yàq ndox mi la ñuy bàyyi mu liggéey liggéeyam amul autorité bu mu ci bu ciy mucc ndox mi ku ne xam na ne am na lu ci lu muy soqe koo dem ci sag njaboot yow màtt ko wala mu gaañ ko nga feebar dem hôpital di faju loolu doy na sëkk coono kon nañ ci jóg ñëw wallu ñu nu mu gën a gaawee yërmande ji nag mun ta weesu xale yi ak maire yeeg paa yeeg ñëpp ànd dem ci yeneen i dëkk ngir dëkkaani fa mun ta weesu jur gi fi ne impacté wu ci asaka ñii di dee ñii di feebar ainsi de suite ainsi de maintenant daal ci tënk koñ bi ñëpp ñoo ngi nii am na ñoo xam ne ñoo ngi ci ginnaaw caméraman bi am na ñoo xamante ne ñoo ngi ci seen kër yi am ñoo xam ne dañ ne ñun sax dañoo dañoo rusa ñëw taxaw parce que dañoo wax a wax a wax ba amatul waxukaay kon ñoo ngi interpellé président de la république ak gouver ak euh, ministre de l' intérieur mais aussi ak sunu préfet bi ak sunu gouverneur bu Diourbel ñoo ngi woo ñëpp ci ñu gaaw dimbalenu defaral nu assainissement boo xamante ne nii ay caniveaux yoo xamante ne ay réserve d'eau yoo xamante ne inondation bi dina wàññeeku le minimum. te boo xoolee baare nañ ko pendant six mois yoo xam ne ni dañ ne dañ ne dañ ne dañ koy defar six mois yoo xam ne nii dañu baare tali bi ba oto yi di dévier di jaar si ay buntu kër jàmbur. dafa def bu poussière boo xam ne nii boo conséquence bi sax mënuñu wax munuñu xamuñu sax fu fu mu toll. boo xoolee route bi nga xam ne nii moo jaar buntu kër colonel Ousmane fay jaar buntu kër secretaire général bu parti. socialiste di Djibi Diallo mm-hmm. route boobu noonu dafa yàqu boo xoolee ñooñ seen kër yi yëpp dafa yàqu rue boobu baaxatul mm-hmm. te li ko waral mooy déviation bi nga xam ne defoon nañ ko si route nationale bi te route nationale bi mu ngi nii ñu jàkkaarloo moo nekk suñ ginnaaw nii mm-hmm. boo leen gisee gis ngeen gis ngeen tali bi nii mu mel boo xoolee nag lii nag tey jii nii ñun Diourbellois dañu war a combattre yu mel nii parce que ñun mënuñu dëkk si dëkk bi ah jox réew mi koo xam ne nii tey jii moo war a gérer assainissement wu dëkk bi wala moo war a gérer yu mel nii tay jii nii ñu koy bàyyi tey jii boo fa demoon tey jii ne ko dama la soxla pour di ko wax yu mel nii mu ne la bokkuñ ma boo lii du sama liggéey wala lii du sama te te effectivement liggéeyam la parce que moom moo moom moo gouverner bi parce que à part moom moo moom moo nekk deuxième deuxième homme homme d'état boo xam ne ni moo nekk fii si biir région bi donc am na yoo xam ne ni ñu ngi ko war a combattre ñun waa Diourbel dañu seetaan dañu seetaan trop dañu seetaan trop boo xoolee yeneen dëkk yi lu mel nii même bu fekkee dafay am tamit du dana fa néew. Mhm. route nationale boo xam ne nii fi la président war a jaar bu fekkee ne tey dugg na biir Diourbel. Mhm. mu mel nii loolu du jaaruwul. Mhm. ba pare ñu baare ko pendant six mois yoo xam ne nii conséquences yi yàq yeneen kër jàmbur yi boo xoolee tey jii nii Diourbel tawagu fi ñaari taw yoo xam ne nii sax dëgër na te te raison bi commencé na inondé. ça fait six mois ferme on a débloqué des millions et des millions ne dañ koy defaroo. tëj nag tëli bi oto yi di dévier ak sareer yeeg moto yi non seulement sunu njaboot yëpp danoo nekkoon ci danger pendant le six mois léegi nag leen defar caméraman bi moo koy filmé mooy lii ngay gis mooy inondé def xam mu rëy rëy rëy te ne def nañ ci ay millions yi millions yi millions du joxe chiffre bi mais ay millions lan ne dinañ ci def doon ko defar tëli pour mën a lan bàyyi nit ñi ñu dem muy route nationale numéro 3 léegi nag maa ngi interpellé gépp rawatina Serigne Mountakha Mbacké mi nga xam ne moo moo yilif yoonu murit ci Sénégal moom mooy xalif général des Mourides loolu laa bëgg expliquer di interpeller monsieur le président de la république à que un mois tout court moo ci des ñu def ñu lan ñu def màggalu Touba muy tombeeg le 4 septembre ku ne xam na ne màggalu Touba bu jotee adduna béppay mab bu jóg ndakaaroog région yi ci des yëpp ci Jurbel gii la ñuy jaar bu ñu jaaree Diourbel fii la ñuy jaar ci route nationale bi léegi maintenant bu ñu dikkee ba fii yori oto mënuñoo jóge fu sori ñëw ba fii dugg ci biir ndox mi ak mi yàq seen oto li ñuy mën a def mooy dévier te bu ñu dévier dugg nañ ci biir euh, njaboot gi te njaboot gi bëri na xale yu sew bëri na yu ndawantoo ainsi de bëri na lu mën a yàq te koñ ñi aussi dañ fay def ay safar di fa baas di fa tànt war faa màggal Serigne Touba Khadim Rasoul ak kon yooyu yëpp c'est des yoo xamante ne nii nañ ko bàyyi xel te moo ngi dëkk sama xarit bii nag di sama rakk di Abdou euh, sonn lool ci ndox mi aussi am na lu mu ci bëgg sànni donc ñu bàyyi ko rek mu tëj ko parce que mënuñoo wax lépp lépp lépp suñu xol daal jeex na mer nan mais ñoo ngi sant Baol Times ci média bi ni ñu koy séddaleele ci àdduna ñu xam méthode bi ñuy dund ëllëg na lu ci am dund waxuñu ko woon dund tamit xamuñu woon dund yëguñu woon